vous pensez que les acteurs politiques dañoo war a dem buy ci dialogue bi ñuy ñuy woote. yan acteur politiques mais les gens sont prononcés parce que dialogue bi ñu woote mooy lan léegi dafa def tout ce qui compte tout ce qui est nañ ko ànduñu ci report bi. loolu leer na nañ def élection yi à bonne date ko kay leer na loolu loolu lan lañ ci waxtaanati li mën a ubbi dialogue mooy li ma la wax sànq bu ne léegi d'accord dañ koy def le vingt cinq le le cinq février. kaale ñu toog ñu xool yan condition lañ pour mën loolu mën nekk loolu moom naa danaa nit ñi jagal ko loolu. merci man maa lay remercier jërëjëf Maïmouna. maman Adama Gueye euh, vous adressez votre tout dernier mot yi Sénégalais yi laay waxal ne leen lii xew nañ jàpp ne ñun la ñu ñàkk teggin voter suñu droit la ñun citoyen du affaire candidat yi. ñun ñoo war a taxaw ba droit boobu ñu xam ne constitution moo ñu ko may kenn bañ ko jàlgati ba le vingt cinq février ñu jox ñu suñu droit ñu voteel ku ñu bëgg yokkaluñu mandat wu kenn dañu dénkoon ba le vingt cinq février bu bu la vingt cinq février nañu delloo suñu jëf ñu jox ku ñu bëgg